mbokk yi asalaamaaleykum jërë ngeen jëf ci ànd bi ak euh, seen euh, rajo réew mi FM dalee nag jàmm ci seen émission ànd aar aaru ne ñu ko baaxoo dimanche bu jot ci waxtu bi euh, tey nag ñu am mbégte dalal professeur Abdou Aziz kebe di délégué général au pèlerinage au lieu saint de l'islam professeur ñu ngi lay nuyu di la gërëm bu baax a baax si disponibilité bi am mbégte dalal la ci ànd aar aaru EMAD ak plan international ànd ci ak réew mi FM bismillah jërëjëf ñi ngi leen di gërëm bu baax a baax di sant borom bi euh, subhanahu wa taala di julli ci yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa di leen di gërëm ci liggéey bi ngeen ñu boole ndax euh, liggéey buy jëriñ askan wi la te lépp lu di jëriñ askan wi rek jaamu yàlla la te jaamu yàlla rek moo ñu fi wàcce dañu wàcc ci suuf pour jaamu yàlla pour dimbali ñi ñu bokkal àdduna ñëpp nag toute l'humanité waaye dafa am ñu gën a jege mooy ñi ñu bokkal ndey mooy le Sénégal donc ñu ngi leen di gërëm ci boole gi ngeen ñu ci boole ci liggéey bu rafet bi ngeen di def di leen ci ñaanal yàlla ngeen am ci ndam di ñaan yàlla aussi ngeen am ci barke. jërëjëf Amine professeur Abdou Kébé tey nag ñu ànd ak euh, Lassana Sagna euh, di secretaire général bu EMAD Lassana dalal ak jàmm ci waxtaan bi euh, daanaka yow moom yaay yaay bopp bi yaay lépp. jërëjëf Fatou ñuy sant di gërëm ci yàlla bu ñu may ñu fekkee may ñu ñu wër di ñaanal askanu Sénégal yëpp ci mbas bi nga xamante ni mu lëmbe àddina bi yëpp. Euh, di ñaanal malade yi nga xamante ni ñoom na yàlla dogal ñu am ko yàlla may leen wér ba ñu dellu seen njaboot yi ñi ci rëcc it yàlla na leen yàlla xare àjjana mm. di nuyu professeur di ko gërëm di ko sant ci dalal bi ñu dalal ci kër gi nga xamante ni kër symbole la ci lieu de l'islam mm. jërëjëf Baba euh, Lassana Sagna secrétaire général bu EMAD ñuy xaaral xaarandi xëy na Baba si euh, bu plan international euh, mën na am mu dab ñu bala ñuy jeexal alors professeur ni ñu ko waxee ànd aar aaru projet la boo xam ni programme bu EMAD ak plan international sumb ci mbas mi ngir ñaax askan wi. jouer itam seen partition surtout ci communauté bi maanaam askan wi nga xam ne ñëw féetee ci suufa suuf ñu jéem a xool naka lañ leen di dimbale waaye aussi naka lañu leen di ñaaxee ba ñu moytu ndax gestes barrières yi wax nañu ne pour le moment gannaaw amaguñu garab amaguñu vaccin moom rek moo ñu mën a muccal bu neexee yàlla ci jàngoro ji di coronavirus kon ni ñu ko baaxoo damay bàyyi Lassana Sagna xëy na mu tënkal projet bi yow ak auditeurs yi nga xam ne xëy na ñu ngi doog a déglu ànd aar aaru Lansana nga ñëw rek euh, ci programme bi euh, lan euh, leen ci xëy na motiver ak itam taxawaay bi ngeen ci am ci mbas mi. jërëjëf Fatou donc projet bi ni ma ko waxoon sànq ci introduction rek di projet ànd aar aaru ONG EMAD tëgg ko ak ONG international plan plan doon bailleur bi EMAD doon maître d'œuvre bi. muy un programme boo xamante ni un projet boo xamante ni day couvrir euh, région de Dakar bon bi ñu nee région de Dakar dafa tàmbalee Dakar Plateau donc di 60 quartiers au niveau de la région de Dakar mais ci euh, découpage médical dañ naan district donc muy district sud district centre district ouest ah district nord fii ñu nekk nii ci district ouest la bokk maanaam mu ngi dépendre ci Philippe Madeleine Senghor muy district ouest donc géejawaay bokk ci euh, yëmbal bokk ci euh, mbaaw bokk ci caaroy euh, géej bokk ci donc bu ñu xoolee zone yooyu ñu tànn yëpp c'est des zones à densité bu ñuy fii par exemple ci district ouest yoof lañ fi tànn ak ngor ak wakaam nga xamante ni ñun suñu mbokk lébu yi ni ñu dëkkee c'est des village traditionnels traditionel boobu ñoo di dëkk te bi feebar bi tàmbalee dañ ne distanciation te muy nekk loo xamante nii day jafe lool distanciation physique ci zone bi nga xamante nañ dëkk donc bi ñu tàmbalee programme boobu muy 60 quartiers ñu ne quartier bu nekk nañ fa jël fukki nit maanaam fukki juróomi góor ak juróomi jigéen mais nañ fexe ba ndaw ñu ëpp ci lu tax ndaw ñi parce que dañu jàpp ni rek bu ëllëgee ndaw yooyu ñooy mën a nettali jéego yi nga xamante ni moom la Sénégal kenn ku ci ñun taxawee ba mën fee xeex li nga xamante ni mooy jàngoor bi donc formation boobu district sanitaire ba nga xamante ni moom moo euh, mooy patron au niveau sanitaire ci gox ba waa district ba ñoom ñooy def formation boobu ñooy formé ñooñu fukki yooyu du fukki yooyu quartier bu nekk yaay tànn sa fukk maanaam délégué de quartier ba bàjjenu gox ba ak leader ba fa ne ñoom ñooy tànn ñi nga xamante ni ñooñu la ñuy yaakaar ni kat bu leen tàggatee bu ñu dellu siwaat seen biir quartier dinañ mën a mener des activités de sensibilisation loolu muy premier acte bi ñu def ko mu ne ñu former au niveau du département de Dakar 60 relais 600 relais 60 quartiers quartier bu nekk bi muy 600 relais donc muy 60 comités de veille et d' alerte ñooñu suñu leen former dañuy lëkkaloo directement ak district sanitaire yi nga xamante ni ñooñu mën nañoo joxe information bi direct ndax feebar bu muy tàmbali ak ñi ko amoon dafa amoon lu ñu tuddee woon stigmatisation ki ko am ci gox ñu di ko goxal waaw donc loolu moom mooy euh, programme bi deuxième vole programme bi vole communication ñu seetlu ñu ndaw ñi ñu ci bëri dañuy yëngu ci WhatsApp maanaam les réseaux sociaux la ñu ëpp lu ñu yëngu seen communication yëpp fa lay jaar ñu donc dañu créer benn site ak ay euh, page WhatsApp yoo xamante ni ndaw ñi lañ koy jagleel ñoom ñu mën a waxtaan ak seen biir seen moroom mi ndaw ci biir programme bi. beneen volet bi ci topp mooy li ñuy def ak yow contactaliser avec rajo yi nga xamante ni ñoo gën a jege askan bi pour que ñi nga xamante ni ay kilifa la ñu mën a waxtaan ak ñoom seen baat ngeen nekk relais pour nit ñi mën a déglu information beneen bi muy ay caravane de sensibilisation parce que forme de sensibilisation la boo xamante ni mais def caravane comme que ndaje yi dañ koy tere mais caravane yoo xamante ni day ànd ak ay affiche ay joxe ay flyers ay maye ay masques mun a dem ci zone yi nga xamante ni c'est des zones à densité nit ñi dañ fay daje lu bari demee ni ki marché yu demee noonu ñu mën leen a may ay masque pour nit ñi am culture takk seen masque fu ñu toll donc daal ci tënk loolu mooy li nga xamante ni programme bi loolu la commencé noonu la koy liggéeyee professeur euh, dégg nga programme bi ni ko Lassana euh, Sagna exposé kon loolu mooy taxawaayu EMAD ak plan international ci mbas mi nga xam ne dal na euh, ci kaw àddina Sénégal itam rëccu ci ban gis-gis nga am ci taxawaay wi ak li nga xam ne nas nañu ko ak li nu ci jot a def ni jéego. dañu leen di vraiment encourager ci li Alassane wax. Euh, ni moom noonu loo loolooy seen euh, gis-gis mais ñu bañ ko yemale rek ñoom yemale wuñ ko rek sax ci mu nekk gis-gis mais ñu fexe ba gis-gis boobu la mu nekk ay jëf yu ñuy bokk ak ñu mel ni yéen di ko tasaare ak askan wi fa ñu dëkk euh, dafa am ñaari mbir yoo xam ne daf ma ci daf ma dafa dafa ñëw ci sama xel léegi bi muy wax lenn li dafay aju même ci projet bi ni ñu ko tuddee euh, trois ans defe naa ànd aar aaru euh, baat yooyu rek bu ci nekk euh, war na mën a tax nun doomu Sénégal ñu ànd ak yéen ci liggéey bi parce que li ñuy def pour senegal la donc lépp luy jëriñ senegal doomu senegal yi war nañ cee mën a ànd senegal aussi mooy sunu ndey ñun ñëpp te kenn buggul sa ndey di jagadi di feebar di télé di ami tolof tolof kon ku ne lii ñuy ànd di ko def pour senegal mucc la képp ku di doomu senegal danga nga si war ànd loolu fi dañuy wax balaa nga naan naam ne fa cest nga nekk fa ak say tànk ak say loxo ki say nopp te nekkewoo fa kàttan nekkewoo fa xel nekkoo fa parce que ji kese amalul askan wi njariñ jëmm ji wér am kàttanu liggéey am xelu génn ay xalaat yu mën a jariñ kookee moo mën a wax naam kookaa fa nekk loolu nag li koy maye mooy ku nekk fexe ba li la yàlla dénk parce que jëmm ji yàlla ñu ko dénk pour ñu liggéey li ñu yàlla dénk ñu fexe ba aar ko mën a aar suñu ndey Sénégal te mënoo aar suñu ndey Sénégal lu dul da ngaa aar ñi nga bokkal ndey maanaam doomu Sénégal yu góor yi ak doomu Sénégal yu jigéen yi donc programme boobu la pour ñun ñëpp dañu si war a ànd bi si des moo ñaar yi benn bi suñu cosaan la beneen bi suñu diine la suñu cosaan dañu jàngal ni dina màtteem du màtte bul jox sa loxo kon bu ñu ne feebar bi lii moo koy tasaare lii mooy tax du tasaaroo li ni mooy tax du tasaaroo loola moom nga war a def parce que boo defee leneen dina dina matteem du matte bul jox sa loxo comme nee nañu la lii boo ko defee mën na am du tasaaroo yow li la war moom mooy nga bañ a jël sa loxo dugal ko foo xamante ni mën nañ laa matt loolu ci sunu wàllu cosaan la su dee ci sunu wàllu diine alquran daf ñu jàngal ni képp koo xam ne rey nga benn nit moom ak boo reyoon àdduna bi yëpp ñooyam 7 milliards de personnes lañu tey ci àdduna bi alquran mu ne boo ci reyee kenn mi ngi mel ni nga rey 7 milliards yëpp mais ne na yi tamit boo ci xettalee kenn nga fexe ba benn bakkan nga xettali ko mu dund moom ak nga xettali 7 milliards yooyu la ñooyam ñun en tant que jullit daf ñuy gënal ñu bokk ci ñuy xettaleete te bañ a bokk ci jeneen xaj gi kooku alquran moo ñu ko jàngal beneen bi nga xam ne alquran jàngal nañu ko mooy jël leen seen matuwaay alquran moo ñuy wax jël leen seen matuwaay xuzu xidrakum matuwaay yi nag ki ko xam li ñu alquran di wax fasalu ahla zikri in kuntum la taalamun laaj leen ñi xam bu ngeen xamul tey jii bu ñuy wax ci affaire lii nii média yeeg yooyu yéen la laaj mais bu ñuy wax ci wàllu wér-gu-yaram ñi ko jàng lañ koy laaj ñi ko jàng nag xam doomu jàngoro bi naka la naka la ko yàlla sàkkee naka la ko yàlla bindee xam naka la soxore doomu jàngoro bi xam naka lay tasaaroo tasaaroowee xam fan la cawarteem nekk ci tasaaroo ak fan lañ ko mën a wàññee cawarteem ba du tasaaroo ñooñu bu ñu ne def leen nangam bi topp yàlla mooy def loolu parce que loolu bu ñu ko defee ñi ngi aar suñu bakkan te aar sa bakkan topp yàlla la aar bakkanu keneen topp yàlla la kon topp yàlla mi ngi ci ñu def loolu mesure barrière yooyu ñu wax def ko mooy topp yàlla ndax ci la ñuy aaree suñu bakkan te aar suñu bakkan yàllaa ñu ko dénk parce que yàlla moo ni wala tulqu bi ay diikum ila tahluka bu leen exposer seen bopp ci lu leen di rey bu leen def lu leen di rey ci seen loxoy bopp par vos propres actes par vos propres œuvres donc ñàkk mesure barrière yi c'est nos œuvres c'est notre propre fait bu ñu ko defee bañ ko topp ba loola marie de taal yi dugg ci ñun kenn tasaaroo ci ñi ci des mais bu boobaa dañoo mooy ndigalu yàlla parce que yàlla bu ne bu leen def ndigal la bu ne def leen ndigal la mu ne bu leen exposer seen bopp ci lu leen di gaañ kon ku ci exposer sa bopp mooy nga ndigalu yàlla ñaar yi benn bi suñu cosaan la dina ma tem du ma tebul jol sa beneen bi suñu diine la te suñu diine nag moom mooy lii déterminer suñu nekkin wu jekk ci àdduna di déterminer suñu nekkin wu jekk ci àllaaxira day lëkkale ñaar yi dama yaakaar ni kon li ngeen di liggéey ñëpp war nañ si jàpp ñëpp war nañ ko war nañu nekk ay relais parce que ku nekk am nga njaboot ku nekk dë am nga dëkkandoo ku nekk am nga kuréel ñun ñëpp ñu jàpp ci jàppale leen ci liggéey boobu la pour que ñun senegal ñu taxawu suñu ndey notre mère notre seule mère elle s'appelle le Sénégal ñu taxawu ko pour mu wér te ak wéram mooy ay doomam wér yu góor ak yu jigéen te ku ci nekk ci ñun la loolu daal laa yaakaar ni mun nañ ko ci teg si lii laa sana wax Euh, mu nekk liggéey bu rafet euh, bu ñëpp war a jàpp. jërëjëf professeur Kébé waral nag euh, ñu seet si la ni mu ko waxee aw nañu ci këru diine yu bari macha allah ndax EMAD ak plan international bu weesoo sensibiliser bi ak xëy na dimbale gi à travers des kits sanitaires ak yooyu dañoo itam tànn. ay kilifa yoo xam ni euh, xàmmee nañu leen lool ngir seen xam-xam ci diine waaye itam ngir bu ñu waxee nit ñi dégg leen ndax euh, mbas mi kenn umpalewul ne ànd na peut-être ak benn aspect religieux ndax itam ñu bari euh, ba mu dalee ci kaw Sénégal dañoo wax ne nanu tuub waaye ñu bari itam ni yow ni nga ko waxee léegi indi ay eh, aaya yoo xam ne mi ngi ci alquranul karim waaye itam ay xadis yoo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko indi mu di ñu won yoon yi nga xam ne moom la ñu war a jaar bu situation yu ni mel taxawee kon loolu itam dafay indi responsabilité wu chef religieux yi ak képp kuy boroom xam-xam surtout ci wàllu diine ngir nga war a wax ak askan wi ñu dégg ndax gis nañu bàyyeeku gis nañu ñàkk topp gis nañu benn xeetu sax défiance bi yëf yi door ci couvre-feu beeg yu ni mel kon loolaa waral tànk yi fi ñuy dooree mooy jullit bi lu ni mel bu amee lan moo war a nekk premier réflexe ak itam ban yoon la war a jaar selon alquran ak sunna euh, xam daanaka am lu ma ci junjoon sànq yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal nañu ni su mbas amee dañuy fegu fa ne nañu toog faju ña nga xam ne ña nga feneen bu ñu leen fekki gis nga ku tedd ki sallallahu alayhi wa sallam ci wàllu fegu ba ci mala yi nee na bu aw bu amee mala yoo xam ne danoo feebar nee bu kenn indi mala wu feebar giléem gu feebar bu ko kenn indi ci biir giléem yu wér xar mu feebar bu ko kenn indi ci biir xar yi wér ngir wàllante bi a yi ay nit mu wax ni donc bu mbas amee ñamu dal nañu toog faju bu leen kenn fekki ñooy it bu ñu fekki kenn defe naa loolu confinement mooy loolu rek ci li yonent bi jàngale sallallahu alayhi wa beneen bi mooy li ñu leen wax léegi te alquran wax ko te euh, faju moom ak fegu yonent bi jàngale na ci lu bëree bëri ba sax moom faju seetu ci ndegam kii faje ab jullit la wala dug jullit na am xam-xam bi rek na am compétence yi donc loolu faju dafa nekk loo xamante ni waru gar la c'est une c'est un devoir religieux euh, diine dafa am ay règles yu yu yu yu gàtt mais yu diis ci maanaa dañ lay wax par exemple que ci relation interpersonnelle yi dafa am benn règle buy wax la darara wala dirara bu kenn lor sa morom maanaam bul loru bul lore <laughs> noonu nga ko waxee de uh-huh. bul loru bul lore donc dans les relations interpersonnelles ce recherche est c'est la positivité lan moo positif lu jóge ci man lan moo positif lu jóge ci yow mais li négatif na ko ku nekk denc ci sa bopp boo ko munee génne nga génne ko kooku règle boobu rek ci ay relations interpersonnelles waroon na doy pour que mbas bu ñëwee li nga xam ne day tax lor jóge ci yow ñëw ci man jóge ci man ñëw ci yow te ñu xam lan mooy tax mu arrêté lor googule ñu def ko loolu rek dafa war a tax ñu def mesure barrière yi. mooy aar aar googu nga wax exactement tekki na bu baax a baax a baax règle règle boobu la beneen bi nga xamante nii aussi règle la ci biir diine te mu mën ñu jëriñ moom mooy li ñuy wax naan dër ul mafsada dër ul mafsada awla min jalbil manfaa maanaam bu mbir amee am lu cay jariñ am lu cay lor benn situation taxaw ma mën a def lii am ci njariñ ma mën a def lii mu mu lor règle bi def ni repousser lii lore jële ko fi mooy priorité ci ñod di lii jariñ parce que boo ñoddee lii jariñ ba pare loru lore doo ko jariñoo keneen du ko jariñ donc priorité yi moom mooy nañ fi jële lii gaañe aujourd'hui je pense que nos autorités l'ont très bien compris la priorité c'était force Covid ñëpp nañu doole yëpp concentré wu ci Covid bi jóge fi léegi bu ñu demee ba xel dal ñu soog commencé seet nag naka la ñuy suqalee entreprise sangam naka la ñuy jàppalee famille sangam et cetera donc loolu ci ñun individuellement lu muy jër moom mooy nañ appliquer règle boobu la ci Covid bi mooy ñun ñëpp nañu jàppee ni suñu priorité moom mooy jëlee fi mbas mi xeex ba mbas mi du tasaaroo te amul beneen mesure amul garab koy naan amul pikiir vaccin buñ lay buñ lay pikiir amagul saafara booy sangoo <laughs> wala nga di kon naan <laughs> du dëgg <laughs> lenn rek moo fi am moom mooy fegu les mesures barrières di takk masque yi takkiinu bu baax di raxas loxo yi ak saabu wala gel yi bàyyi ñëpp nuyoonte loxo joxe loxo joxe loxo moytu dajaloo yi fu mu mënta ñàkk ñu fexe ba mu am dikk boo xam ne day dox diggante nit ñi meetar ak lu topp ngir ñu mën a bokk ci ñuy contribuer à Euh, maanaam ñi nga xam ne dinañu bokk ci ñuy xeex ba Covid bi du du tasaaroo mais loolu lépp diine ñu ko jàngal ak suñu aadam comme li ma leen ko waxee sànq nit nag ñaar yooyu rek la mën a am cosaanam ak aadaam ak diine ji muy yaakaar yàlla dinaa ci teg lenn gis nga li li nga doon wax léegi ñaar am na déni ak défiance am na ñuy weddi naan feebar bi amul feebar bi amul waaw gis nga soxna su tedd si ngeen baal ma li may war a wax parce que xëy na stigmatisation def ciy am wala ma waxee ko neneen gis nga ki bëgg xaalis le capitaliste gis nga capitaliste xaalis ni mu ko jaral jaral na ko lu baree baree bare su demee ba àdduna bi avion yëpp tëdd benn naawul hôtel yëpp tëj njaay yëpp fermé euh, euh, ñi dëkk sow les occidentaux seen bakkan topp seen bakkan seen bànneexu bakkan li mu leen jara ñu sol tubéy bu gàtt ak carax wër réew yëpp defi tourisme loolu lépp tëj amul demuñu vacances demuñu fet lu gën a rëy ci àdduna bi ak makka ak siyaaree ku tedd ki sallallahu alayhi sallam kaaba ga wéet rawdu yenent bi wéet waaw loolu nga di ko gis ci àdduna bi ba pare nga ni dara xamul loolu dafa doy waar. boole ci ñu tëj jàkk yeeg jumaa yi. jumaa yeeg chapelle yeeg euh, euh, cathédrale yi le pape François euh, célébré Pâques moom kese ci biir basilique bi waaw loolu mu am nga ni feebar bi amul. waaw dëgg-dëgg loolu dafay doy war même bu dee gëm nañ ni feebar bi damaa gëm ni feebar bi amul man bu ma ko gëmee naa fexe boog ba lii nga xam ne règle diine la encore muy yenent bu tedd bi sallallahu alayhi wa daf ko jàngale ci benn xadis euh, mag ñi fii am nañu ko tëggee ci seeni règle mu ne wa zuhtiyaatin fii umuri diini man farra min shakkin ila yaqin maam Maodo moo wax loolu dafa ni bokk na ci ci jël ay matuwaayam ci wàllu diine ki nga xam ne dafay bàyyi li nga xam ne si doute jëm ci li nga xam ne amul benn équivoque xam nga tey man bu ma gëmee ni feebar bi amul man maa ciy duute waaye gis naa ni jàkka yi tëj nañu kooku du équivoque suñu kilifa yi nekk ci Sénégal ñoom dafa ngeen ni amuñu xam-xam wala ils ne sont pas imbus de leur responsabilité devant Dieu bay tëj jumaa yeeg jàkka yi pour lu am ci yenn événement religieux yu bëri ñu annulé ko. tout tout tous les événements depuis Covid ba léegi tous les événements gàmmu yu ndaw yeeg màggal yeeg ziar yi tout tout. waaw mais loolu man bu ma dutee tamit loolu moom du lu may dutee c'est des choses qui existent qui sont là par conséquent. naa téye sama doute mais naa appliqué li nga xam ne moom moo tax lii am lii tax ñu ñu ñu arrêté ko pour man déni boobule dañ war nañ ci dellu siwaat bu baax wane joxe ay exemple ci àdduna bi ñaar moo fi am lii dundal nit ñi seen yaram lii dundal seen bakkan muy seeni loisir loolu lépp économie moo ko yore ak liy dundal seen rox jaamu yàlla moo ko yore su dee liy dundal seen yaram ak seen bakkan li economie du doxal même jaamu yàlla sax économie dafa si dugg mais su dee ñaar yooyu nga xam ne économie moo koy doxal aujourd'hui l'économie mondiale est en panne lu ko waral Covid li ci des mooy lii dundal rox jaamu yàlla bi ci gën a kawe mooy aju màkk lu ko waral Covid bi kon déni bi nañ ci dellu siwaat pour expliquer doomu aadama yi yi nga xam ne c'est des faits tangibles ay mbir la yoo xam ne lu ñu mën a gis la lu ñu mën a teg baaraam la pour ñu wàññi sikki sàkka bi nekk ci xel yi bi ci des nag défiance la défiance nag man gëm naa ni sax sénégalais yi gëm nañu bëgg nañu nekk ay jàmbaar mais défiance nañ koy def ci loo xam ne bu amee conséquence day yem ci ñun par exemple bu fekkee man bu ma yéegee ci étage bi nii mun naa daanu mën naa naaw dem ci beneen étage bi man bu ma daanoo ci man la yem défi défi yooyu défi boo xam ne bu ma ko defee ci man la yem ok mais défi boo xam ne bu ko defee du yem ci man dafay tasaaroo ci keneen ah boobu nag sama responsabilité mooy na aar sama bopp naa aar keneen ki donc défiance yooyu lay aussi je pense que war nañu wax bu baax jàngal sénégalais yi ñu gëm ni liñ ñuy woo ñu di ko def du pour ñun kese kese mais pour ñi ñu bokkal ndey la pour ñi ñu bokkal senegal la te ku nekk nag yéene nga sa doomu ndey dund sa doomu ndey wér sa doomu ndey nekk ci jàmm lii tax suñu doomu ndey wér suñu doomu ndey dund suñu doomu ndey nekk ci jàmm gannaaw yàlla mooy yàlla yàlla bay sa tool ñaan kese kese te fekk jiiteluloo jëf mag ñi dañu wax ni bàyyi def sabablu ba pare di ñaan yàlla ñàkk teggin ya ñàkkee teggin yàlla la kon nañu jël asbaab yi nañu sabablu les mesures barrières dama ci insister les mesures barrières topp yàlla la parce que mooy tax ñu fekk sunu bakkan ba keroog yàlla mu koy sob mooy tax duñu bokk ci ñiy tasaare jàngoro ji te loolu ihsan la loolu sarax la loolu loolu loolu loolu bienfaisance la Euh, ma daaneele lii naafi la guddi ci yow rek lay yem wóor bëccëg bi ci yow rek lay yem naafi la bëccëg bi ci yow rekk lay yem waaye tibu ceeb bi nga génne jox ko keneen mu añ moom ak doomam jël na la jariñ na keneen pont bi nar a jam nit nga yëkkati ko parce que naroon na la jam jamatu la mais jamatul keneen c'est exactement la même chose acte de bienfaisance yooyu la ñoom ñooy naafile yi yàlla gën a bëgg takk sa masque ngir bañ a tasaare raxas say loxo ngir bañ a bañ a joxe loxo ngir bañ a tasaare def distanciation ngir bañ a tasaare acte de bienfaisance la naafile la boo xam ne daf lay jël jariñ keneen te naafile yooyu la yàlla gën a bëgg. yaakaar ne da nga ci am yiw. bu baax a baax incha allahu taala yiw rek nga ciy am parce que sunu borom moom dafa wax ni du sànq añu ci def yiw yàlla moo ko wax mu ne moom du sànq añu ki nga xam ne def na lu yiw te act yi gën a yiw mooy yi lay jël dem ci keneen acte yi yam ci yow baax na mais yi lay jël dem ci keneen ñoom ñoo gën loolu mooy acte de bienfaisance yi. acte de bienveillance yi te loolu yonent bi daf ko digle. salaamaaleykum alors ñu ubbi parenthèse euh, wax ci pèlerinage bi yow yaay délégué général wax nga ko sànq ren aj màq amul umra amul dañoo tëj lépp daanaka euh, dara xew fa lu dul ñi nga xam ne ñoo fa dëkk ñu tànn ca ñenn ñu mën a dem euh, matal ponk islam boobu yéen fii Sénégal naka ngeen ko dundee ak ban impact la am ci li nga xam ne moom ngeen doon def. Euh, Sénégal comme yeneen réewu jullit ñëpp ñi ngi doon waaj pour mottali loolu nga xam ne warugar la ba sunu borom indi li muy indi ñi nga xam ne ñooy kilifa yi nekk Arabie Saoudite euh, ñu profité si aussi wax dëgg sunu borom gërëm leen sargal leen parce que dañ ci taxaw taxawaayu kilifa. xam lan mooy priorité parce que jaamu yàlla yi bépp bu ànd ak lor rek yàlla teggi na ko bu koor jotee boo feebaree ñu ne la bul woor booy tukki sax ñu ne la bu la neexee bul woor bu julli jotee sooy tukki sax ñu ne la wàññil julli donc ñoom comprendre nañu priorité bi mooy nit ki ak jàmmam et comme lii dafa nekk luy menacer nit ñi ak seen jàmm ñu jël jàmmu nit ñi teg ko ci kaw forme jaamu yàlla bi parce que fond jàmm yàlla bi moo am solo vraiment am nañ ci taxawaay bu am solo ci wàllu googule le gouvernement du Sénégal fekk na leen ci aussi ci wàllu nit ak nit ak bëgg-bëgg ak mar moom muy mar jaamu yàlla ak waajal gum ko doon waajal mën na jur ci moom déception ci premier coup bi waaye en tant que julit da ngay gëm ni suñu borom moom mooy seet lu ko soob mu dogal ko te lu ko soob mu dogal ko rek loolaay li gën donc sénégalais yi amoon nañ ci déception ñi ngi ñaan yàlla mu jóge fi bu déwénee ñu dem ci jàmm ak sela mais yi tamit nangu nañ ko comme dogal bu yàlla indi taxaw nañ ci aussi avec beaucoup de solidarité parce que ñi nga xam ne ñooy organiser aj gi ak délégation générale am nañu ay jotaay waxtaan nañu ci ay mbir yu bëri euh, ba fii mu nekk nii sax ñi ngi waxtaan euh, luy gën a defar mbir yi bu jotatee euh, fan mooy fi ñu war a xoolaat et cetera ñu profiter maanaam ci ci anam yi pour gën a liggéeyaat daal lii tax bu dikkaatee ak jàmm mu gën a baax impact bi nag am na wax dëgg suñu borom parce comme ni ma la waxee rek tey bu ñu daan organiser euh, aj gi bu ñu ubbee fee ci liberté 6 seex fi ñi daan jaay si añ tabarkal ñi daan jaay si ay kaset tabarkal ñi daan jaay si ay camara ay armal donc y avait une une économie quand même mm-hmm. une microéconomie qui tournait autour de l'organisation du pèlerinage bon boo weesoo loolu Euh, ñi nga xamante ni ñoom ñaa daan encadré pèlerins yi muy médecins yi muy infirmiers yi muy guide religieux yi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo moom agence yi daan ci liggéey di ci am lu ñu teddee teralee ko seeni njaboot évidemment il y a un impact important sur le plan économique mais comme le gouvernement du Sénégal am na lu mu teg pour jàppale ko organisation yi ñoom tamit mën nañu dugg ci euh, Euh, xaw ma naka laa ko mun oowee ci registre bi nga xam ne moo méngoo ak ñoom seen seen seen activité pour que euh, ñu mun a am lu leen lu leen jàppale ñaan yàlla nag yàlla jële ko fi ba déwén nag jàmm ñu bokk ko fekkee ba mën a organiser organisation bu euh, mucc ayib incha allah alors ñu tëj euh, parenthèse euh, boobu euh, professeur Abdouaziz Kébé ma fàttali moom la dalal ci ànd aar aaru muy émission bi nga xam ni EMAD ak plan international ñoo leen ko jagleel ci réew mi FM waxtaanee mbas mi ak itam naka la ñu ko war a moytoo alors professeur xam naa ni yaa ngi suivre actualité yaa ngi topp lii xew et su fekkente ni peut-être am na laaj boo xam ne bëgg nga ko jibal Euh, par rapport ak euh, pandémie bi euh, ñeel EMAD plan international wala yu xeetoo noonu ni ñu ko baaxoo rek jox la kàddu gi yooyu tam nga yëkkati bu fekkee am na préoccupation yoo xam ni soxla nga ci ay leeral. bon man xëy na sama ay préoccupation toujours dama koy jëmale si wàllu jeunes yi les jeunes garçons comme les jeunes filles ndaxte yàlla dogal na ni majorité wu population Sénégal ndaw yi lañu yàlla dogal na aussi que Euh, jeune Sénégal yi xëy na jeune àdduna bi sax d'une manière euh, globale ñoom la yàlla def peut-être ñoo ëpp résistance parce que seen système immunitaire euh, bokkul ak suñu yos ñu nga xam ne màggat na donc ñoom toujours dama leen di woo pour ñu bañ a insouciant pour ñu baña a ñàkk paal ci mbir yi parce que su fekkee yëguñu dara ci suñu yaram san ne signifie pas que dara amul ñoom dama leen di woo pour que ñu comprendre leen dund lii la bi nga mënagul dara ak bi nga mënatul dara ci diggante bi nga mënagul dara ak bi nga mënatul dara ki mën moo fi nekk mooy les jeunes ñooñu mën nag il faut que ñu conscient ci ni ñoom ñoo war jàpp ci loxo ñi mënagul dara ñoom ñoo war a aar ñi mënatul dara parce que ñi mënatul dara ñoo leen aaroon ñoo jàppoon ci seen loxo bañ cay toll. ci Covid bi ñu comprendre ni xëy na yàlla dafa def ñoom ñoo war a ëpp tuyaaba loolu la yàlla def xëy na que ñoom jeunes yi ñoo war a ëpp tuyaaba en quoi comme ñoom ñooy ñi nga xamante ni mun nañ nekk ay porteurs sains ci waxin waaye itam mën nañ ko transmettre sans ñu yëg ko. ci ñoo xam ne dañu am précarité ci wàllu wér-gu-yaram ñoom ñoo war a am une conscience aiguë pour aaru aaru d'abord parce que seen aaru moom mooy jur aar keneen toujours daal man sama préoccupation ci jeunes yi mooy ñu bañ a insouciant ñu bañ a am insouciance ci wàllu Covid bi bañ a xalaat ni rek comme yëguñu dara ça ne les concerne pas mais au contraire ça concerne au premier chef parce que ñoom la yàlla dogal ñoo war aar ñii ñoo war a aar ñee xëy na loolu mooy indi ñoom ñooy ëpp tuyaaba incha allah ci mbir mi. loolu dafa may indi ci peut-être ndoxteel gi ni ma la euh, laajee woon jullit bi lu nu mel bu amee ban gis-gis la ci war a am ban taxawaay la ci am peut-être ça va être un philosophique mais euh, xëy na ñu bañ a gis ne mbas la rek musiba la ni nga ko waxee mën na am ne yiw la war a nekk euh, ci une partie. par exemple la jeunesse nga xam ne yëf yi bu dalee seen kaw mën nañ ko bañ a yëg mën nañ cee bañ a loru amaana am na ko mu dal ba mu wér te yëgul ne sax am na ko parce que yàlla baaxee na ko organisme bu résistant kon kooku bu toppee bakkanam xëy na soor boppam kese mun na ne man kat bu ma neexee bañ a takk masque bu ma neexee bañ a respecter les gestes barrières mais bu sóoraalee ñeneen ñi peut-être dinañu indi ci beneen niveau boo xam ni xëy na jaamu yàlla lay nekk waaye ñu gis mbas mi aussi ci beneen bët sous une autre forme ni que lii kat mën a nekk xéewal ci ñun ñi nga xam ne xëy na am nañu doole am nañu kàttan waaye itam xëy na après dinañ ci ñëw mu nekk moyen wu tuub si si si jullit yi. jullit yi xam nga mbas bu ñëwee souvent maa ngi ko doon wax ay mbokk euh, ñu leen euh, dama yaakaar ni li ñuy wax mbas mi mbugël la mbugal la mbugal la man gëmuma loolu. gëmuma ni mbugal la gëm naa ni nag nattu la parce que mbugal moom yàlla xettali nañu ci moo ko wax ci alxuraan mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du leen mbugal feeg yaa ngi fi duma leen mbugal feeg ñi ngi wax astaghfirullah te xam naa Sénégal moom fajar gu nekk di ngeen dégg astaghfirullah ngoon gu nekk di ngeen dégg astaghfirullah donc gëwuma ni mbugal en revanche yàlla wax na ci alxuraan ni dinañu nattu dina ñu nattu ci xiif ci bekkoor ci ndeete am ay de et cetera donc nattu la nattu nag bu dikkee jullit bi daf si am benn position position bu njëkk moom mooy mu fexe ba li ci aju ci moom parce que dafa am luy aju ci ñun mooy jokkalante feebar bi am loo xam ni mbiru yàlla la mbiru yàlla mbiru yàlla la mais li nga xam ne mooy aju ci ñun jokkalante feebar bi ñu fexee ba li alxuraan wax bu ñu exposé suñu bopp bu ñu exposé keneen ci lu koy lor ñu taxaw ci tem beneen bi moom moo di li nga wax léegi wàllu tuub c'est-à-dire que li tax yàlla dinu nattu benn suñu pas-pas la xëy na fu ñu toll est-ce que am nañu pas-pas bu dëgër est-ce que nous sommes résilients est-ce que est mën na am sax mu nekk di euh, nattu suñu solidarité est-ce que nous sommes solidaire entre nous. Mm-hmm. est-ce que. ñu ngi dimbalante est-ce que ñu ngi dimbalante. mën na am mu ngi nattu suñu conscience universelle est-ce que jàppee nañu suñu bopp comme koo xam ne lii lor humanité bi yëpp mën na jóge ci yow comme liy jëriñ humanité bi yëpp mën na jëriñ ci yow mën na jóge ci yow. yooyu yëpp dafa am ñu ci sant. te day xool est-ce que dinañu appliquer. loolu yëpp mooy. Euh, gis nga diine gis nga li ngeen di def nii euh, communication su amul euh, la finalité de des messages mooy modifier les comportements tous les messages benn finalité la ñu am mooy modification de comportement modification de comportement ay action la connaissance boo xasee ba xam da ngay jëfe li nga wax léegi mooy lii ñuy wax ni yëpp bu ñu ko xamee ba pare jëfe gi alxuraan lu tax mu naan amanu wa amilu saalihaati amanu wa amilu saalihaati parce que gëm naa gëm naa gëm naa te reflété wul positivement ci sa ay action ngëm nga dafay dese dafay dafay naqaree gëm donc yàlla buy waxtu dafa ne amanu ñi gëm waa amalu saalihaati action yu positive donc li ñu wax nii yëpp nattu yi yàlla di nattu si ñun est que ñun dañuy mesurer suñu solidarité suñu conscience humaine est dañuy mesurer suñu responsabilité autour de nos familles de nos enfants de nos pères est-ce que est-ce que est-ce que tout cela c'est des de poser en tant qu'être dund ci penc li nga xam ne moom mooy moo ci suñu warugar comme ni Emad di moo suñu warugar lii la lii la ku nekk ci ñun yooyu yëpp boo amee nag. li ci des moom mooy noo koy jëfee noo koy traduire en acte la première traduction en acte c'est être la balaa nga naan naam nefa nefa mooy lan être sain de corps et d'esprit nga aaru soo aaroo ba pare est-ce que yow rek doy nga wala est-ce que da nga war a liggéey lu lay jëlli di dem ci keneen muy solidarité bi ñu doon wax léegi amalu saalix bi ñu doon wax léegi woor beeg julli beeg yooyu yëpp baax na mais am na lu ko gën li ko gën moom mooy ngay def loo xamante ni daf lay jël di jëriñ askan euh, nga boole ko ci li ciy jiitu moom mooy nga aar sa bopp li ci des mooy nga xamal ñeneen ñi pas seulement par la parole mais par la par l'exemplarité bu ñu gisee ñëpp takk masque ku takkul masque di nga tumuranke suñ xalif généraux yi pour ñëw ci chef religieux yi gis nañu ko sëñ Mountakha mu baax mi ak euh, sëriñ Babacar Sy Mansour ñoom ñëpp daanaka euh, taxaw nañ ci mu wane ne itam islam euh, jiitu na ci li nga xamante ni moom mooy li ñuy wax. c'est l'exemplarité maanaam ñoom du ñu wax yam ci dañuy wax jëf. amanu wa amilu salihat gëm nañu ni lii moo fi nekk gëm nañu lii boroom xam-xam yi wax maanaam experts médicaux yi gëm nañu li ñu wax gis nañu àdduna bi nu muy doxee am nañu une responsabilité ci seen bopp am nañ ko ci seen communauté dañ koy wane par les fait mais ñun tamit dañu def noonu ku nag ci suñu cercle bi nga nekk ko defee nag euh, bañ yi tàyyi tamit aussi bañ a découragé aussi bañ a tàyyi bañ a découragé parce que ñun jullit ñi yenent bi jundu na fukki at ci màkk di woote ci luy jëriñ ñu defal ko lépp luñ ko defal ciy métit mu ñëw Madina defaat fa fukki at di woote luy jariñ doomu aadama yi ñi ko gëmoon bi ñu koy wax naa rafa'na laka rek bi ñuy wax yonent bi naan ko ton nom sera exalté ñi ko gëmoon boo ngëbee sa loxo ca la ñuy yow tey ñu nekk plus environ deux milliards moo tax même ñiy caricaturé yonent bi il contribue à wa rafa'na laka rek parce que bu ñu caricaturer def euh, maanaam wane nii wala wala wala wala wala Muhammad nga xool ko yow doo gis Muhammad bi ñu dessiné Muhammad bi nga gis bi nga xam ngay gis te Muhammad bi nga xam boo ko gisee rek ni sallallahu alayhi wa sallam donc bëccëg bi ñu defee caricature adduna bi yëpp dinañ wax sallallahu alayhi wa sallam wa rafa'na laka dhikrak dañ ciy contribuer sax ñu xam ko ki ñuy wane nag ni kii la kooku moom du yonent moom seen ñoom seen <laughs> bopp seen imagination la mais ñun yonent bi ñu xam lii la jikkoom alquran dafa wax ni wa innaka la ala xuluqin azim en vérité tu es au-dessus des qualités supérieures kooku mënoo koo caricature yonent bi ñu xam lii la addabani rabbi fa ahsana ta'dibi yàlla moo ma yar ba pare rafetal na nim ma yare kon kooku ñuy dessiné du kooku yenent bi ñu xam lii la nit la comme ñun waaye nag yuuxaa ilayya yàlla moo wax yu di wàcce ci moom donc mun ngeen a dessiner autant que vous voulez lu leen neex mais vous n'avez pas dessiné Muhammad Muhammad boobu ngeen bëgg a xaxar def ko ci seeni journal bindaat ko génnewaat ko saa yu ngeen ko génne adduna bi yëpp wax sallallahu alayhi wa sallam leen ci dara kon war a faanaa laka zikrak kon ku tedd ki sallallahu alayhi wa moomu li mu ñuy jàngal ci yu mel ni amanu wa amilu saalihaat la jëf ji yiw jooju ma doon woote ñu dàq ko ci jëf ji yiw jooju mu doon woote ba mujj adduna bi yëpp nangul ko jëf ji yiw jooju ñun nañ si nekk a notre échelle et à l'échelle de la Covid jëf ju yiw ji mooy yii ngeen di wax geste barrières yi ak communication pour modification comportement wu nit ñi yal na leen si yàlla defal barke. amiin macha allah xëy na ñu ñëw ci yow bu fekkee am na ci bëgg a dolli euh, ci li professeur Kébé développé fii yëpp macha allah euh, yaakaar naa ne seen objectif moom jot ngeen ko ndax bu dee sensibilisation def na ci ba mu doy dugal nañu ci alquran dugal nañu ci sunna ak itam ci aada ak cosaan sax nga xam ne fii lañ ko fekk euh, ci Sénégal suñu maam yi muy itam lépp loo xam ne dafay digle rek lu baax fagaru aaru aar comme ni ngeen ko waxee ci seen programme bi. Euh, jërëjëf Fatou xam naa ni tey moom dama bég ndax ci dama jàng si ndax euh, professeur li mu ci waxee euh, jàng naa ci lu bare bari ci may yëngatu ci Covid ba léegi tey laay doog a xaaw a am bunt ne takk bii may takk mask non seulement sama bopp laay aar waaye maa ngi ciy jaamu yàlla waaw conscientisation conscientisation boobu Euh, ci discours bi mu wax ak ci développement am boobu maa ngi doog a loolu mu ngi doog a fixé sama bopp te c'est c'est très important te dafay indiwaat rek li directeur plan waxoon ni xeex bi na ngeen ci boole ndaw ñi pour ndaw ñi mën a con ñu conscientiser leen ñu xam seen responsabilité professeur wax na ko sànq xëy na feebar bi sonalul ndaw ñi mais ndaw mun na koo wàll mag ci li mu jàngale donc loolu day rejoindre euh, place de choix bi nga xamante ni ndaw gi war na koo am ci biir xeex bi donc day dëgër la nag ni ñoom ñi nga xamante ni ñooy suñuy kilifa seen kàddu nañ ko mën a tëggee ba ñun ñu mën koo nangu mën koo accepter yàlla nañ ci yàlla yokk taxawaay bi yàlla nañ ci yàlla sàmm donc loolu vraiment mooy li ma ciy dolli di ci kontaan bu baax a baax a baax ci message bi nga xamante ni vraiment professeur lancé na ko waaw professeur lancé na ko ma ci yokk rek ci programme bi professeur wax na ko sànq ni état xam nga buñ nee ONG nga agrément état ngay dem li état di liggéey yow ca pegg da ngay nekk ca pegg ba ca waasa ba nga bokk nga am loo ci liggéey donc gis nañ ci plan euh, riposte bi président la république li mu loon askan bi donc ñun bu ñuy tëgg programme bi dañ ne comme président mën na joxe ceeb ak déglu nag yooyu moom moo am kàttan googu ci wàll santé la ñuy liggéey donc nañ nañ joxe ay kit hygiénique waaw kit hygiénique yooyu mu jóge ci lavoir raxasu saabu bu ñuy jox eau de javel donc quartier bu nekk ñu tànn fa soixante quinze quartiers soixante quinze familles les plus vulnérables ñi nga xamante ni vraiment seen loxo jot ci ginnaaw donc ñu distribuer ko mu tolloo ko ci quatre mille cinq cent kit yoo xamante ni joxe nañ ko waaw loolu. di mu ngi nekk rek participation mooy ci li nga xamante ni mooy euh, jàpp bi ñu war a jàpp ci suñu ndey gën a wër waaw vraiment jërëjëf professeur ci loolu di ci gërëm vraiment jàppale plan international euh, seen directeur di ci sant ki nga xamante ni mooy sama président Abdou Khader Gueye di ko sant moom mi professeur di sant euh, Jamil mi nga xamante ni vraiment suñu xarit la suñu rakk la bokk yi ci emaat hmm? am pas-pas lool lool lool lool lool lool euh, di ko ñaan yàlla jazaakallaahu xayran jërëjëf professeur xëy na la mooy doon laaj bu mujj bi fi may jeexale ak yow parce que euh, xëy na lii plan ak euh, EMAD def mën naa jaaxal ñu bari mooy sumb lu mel nii di xeex pour wér gu yaram ak peut-être pour jàppale askan wi mais ñu insister lool ci volet religieux bi boo seetloo émission yu bari yu ñuy def ak yenn kilifa diine daanaka dañuy dugg ci diine ji bu baax a baax ñu jox ko it importance bu macha allah parce que bi ñuy door dañu ne ci kilifa diine yi la ñu bëgg a dem jox leen kàddu ñu bëgg xam noo gisee déjà. importance boobu ñoom ñu jox euh, diine jox ko kilifa diine yi ci lu ni mel euh, loolu dafay peut-être génne responsabilité wu jullit bi ak itam islaam euh, bala ñuy ñëw xëy na ci responsabilité boobu nag nga xam ne islam taxawee na ko mais plan ak EMAD option bi ñu def ci kilifa diine yi boroom xam-xam yu mel ni yow ñu ñëw di la ci laaj taxawaayu islaam taxawaay jullit bi naka nga ko gisee. jërëjëf euh, je pense que laaj boobu am na solo parce que xam nga diine la alaaxira taxu koo jóg <laughs> diine àdduna ko tax a jóg alaaxira euh, moom noppalukaay la euh, fii lañ koy liggéeyee or lii tax a jóg diine moom mooy nit déggoo ak yàlla te nit mënul déggoo ak yàlla su fekkee xamul su fekkee wérul su fekkee jugul euh, wér-gu-yaram nag mooy fondement wu lépp parce que bu wér amul loolu yëpp du mën ñëw li tax ñu war a boole diine ci mbir yi su tànk ñi ngi yaakaar ni diine sëgg siggi woor génne azaka dem màkk la bu boobaa ñi ngi yem rek ci li nga xam ne mooy symbole yi diine mais lan mooy valeur u diine julli gi alxuraan dafa wax ni julli dafay tere nit mu def ñaawteef walla mu dëkkee def ñaawteef donc si ça la valeur valeur bi moom mooy nit am conscience ni moom ëppal na boppam dëkkee def ñaawteef c'est ça la valeur de la prière asaka lan mooy valeur génne euh, cinq pour cent ci sa alal joxe ko non asaka valeur mooy juróom-ñett yi ñu ko war a jox miskin éradication wu pauvreté supporter le voyageur bi nga xam ne il est en rupture de provision pour mu bañ a nekk agresseur entreprise bi nekk en faillite ndax dafa surendetté ñu renflouer ko parce que ay pères de famille ñoo nekk ci entreprise boobu la bu entreprise bi daanee famille yooyu yëpp ñooy daanu famille yooyu yëpp dugg dans la précarité ñii mun nañu nekk ay yalwaankat ñii mun nañu nekk ay agresseur c'est saa la valeur de la zakat donc boo boo yemee ci symbole yi te duggloo ci valeur yi doo mën a jox diine àqam li tax nag yu que ce soit l'éducation que ce soit la santé que ce soit même euh, euh, le patriotisme et le civisme économique xam nga azaka ki nga xam ne dafay génne cinq pour cent ci alalam di ko di ko joxe azaka si il est bien conscient du bañ a joxe impôt donc le civisme fiscal même mun nañu utiliser diine pour encourager ak yeneen ak yeneen donc lu mel ni nit ñi waruñu euh, am euh, jaaxle ci nañu ci dugal diine non pas en termes de culte ci maanaam julli sëgg ak siggi mais en terme de ressource de vie yi nga xam ne moom la diine làmb pour aar nit bépp nit nag waxuma jullit de aar nit laa wax waaw waxuma waxuma aar jullit mm-hmm. pour aar nit bépp nit parce que nit ñëpp ñëpp ñëpp ki tudd Jean ak ki tudd Ibrahima ñoo ci yam ñoom ñëpp yàllaa leen sàkk loxo yàlla bu tedd boobu bu dee mënee mënees na ko waxee noonu moom moo leen tam-tamal ba pare formé leen yàlla moo wal ci ñoom roox kon nit kooku li xoolal ci moom yàlla rek boo xoolee ci moom mbir ni kii yëfi yàlla la c'est l'œuvre de Dieu lépp lu mu laaj pour kooka nekk ci jàmm danga ko ko defal da nga koy def yow ngir yàlla donc ressource de vie yooyu la moom moo tax ñu war a boole diine ci mbir yi ko defee lépp lu ñuy dugg que ce soit sur le plan de la santé de l'éducation de l'entrepreneuriat du civisme de de de de bu ñu ci dugalee ces ressources de vie yi nga xam ne ñoo nekk ci diine te ñun ñëpp am nañu diine bu ñu dul jullit sax ay chrétien la mais ñun ñi nga xam ne ñoo ñooyu ay jullit kenn waruñoo jiitu ci gannaaw bu ne ashhadu an laa ilaha illa allah mooy imaan bi kenn waruñoo jiitu nag ci amalu saalih allazina amanu wa amilu saalihat donc loolu rek moom mooy war a tax ñu war ci boole euh, diine ji euh, kilifa diine yi génn ci seen kàddu ba pare am nañu légitimité kilifa diine yi dañu am légitimité légitimité boobu la ñu am dafay yokk crédibilité wu message yi ñuy génn parce que nit ñi wóolu nañ leen mm-hmm. te comme nit ñi wóolu nañ leen bu ñu leen gisee ci mbir seen xel dal kon bu ñu leen jiitalee ci yi nga xam ne dafay jëriñ askan wi dinañu am yaakaar ni askan wi dana ci topp ku diine ji na nañ ko boole ci mbir yi rek man mi itam ko xam ne gëmul woon geste barrière yi gëmul woon yëf yi waaye bu déggee xëy na ku mel ne professeur kebe wax ne jaamu yàlla la yiw itam mën na caa génn muy xëy na koo xam ne ma ngay dab dabal ngir am ay tiyaaba sama classe gi danañ ci gën a góorlu ñu ngi lay gërëm professeur Abdou kebe amoon mbégte lool dalal la ci ànd aar aaro rafetlu itam waxtaan wi ak sensibilisation surtout bi nga xam ne euh, yëkkati nga ko ci euh, kon euh, jëme ko ci askan wi surtout ñi nga xam ne ñooy ndaw ñi jërëjëf ñu ngi leen di gërëm yéen tamit bu baax di leen ñaanal borom bi subhanahu wa taala yal na yàlla def barke si li ngeen di def yal na yàlla def barke si seen liggéey yal na yàlla def barke si seen i jéego def ko ci suñu réew ñaan suñu borom yal na yàlla génne fi mbas mi génne ko ci àdduna bi yëpp nit ñi dellu ci seen sago dellu ci seen i yitte yal na nekk aussi occasion pour que ñu gën a suudewaat en tant que sénégalais euh, doxalaat diggante yi solidarité bi Euh, comme ni ñu ni li ñu mbas mi jàngal moom mooy am na lu essentiel am na lu secondaire ñu yàlla génn ñu si ñu def focus nag ci yi nga xam ne moom mooy li essentiel pour suñu réew jëm kanam loolu rek la ñuy ñaan suñu borom subhanahu wa taala di gërëm EMAD ak seen bailleur plan international ci liggéey bi leen gërëm yéen ak waa euh, seen réew mi et enquête 221 leen ñaanal yàlla ngeen jëm kanam incha allahu taala jërëjëf professeur Abdou Aziz Kébé ñu félicité nag bu baax EMAD ak plan international surtout président Abdou Khadre Gaye ci gis-gis bi macha allah ndax tey laa sana ni nga ko waxee euh, jàng nañu fi lu bari te itam sensibiliser na xam nga diine dafa nekk loo xam ni dafa am solo moo xam jullit bi la wala chrétien bi bu ñu ne leen lii sa diine lii la ci wax taxawaay wi nga ci war a am donte gëmuloo ko yaakaar naa ne luy participer ci sensibilisation bi la kon bravo bi ngeen gisee euh, buntu bi nga xam ne mooy buntu diine yamu leen sensibilisation bi au plan sanitaire ñu ngi woon tey ak Lansana Sagna mooy secrétaire général EMAD Lansana xanaa mbàyyi la rek nga tàggoo très rapidement waa ji gërëm professeur euh, di ko ñaanal yàlla yàlla yokk wëram sàmm ko sàmm njabootam euh, ndomb biñ ko dénkit yàlla euh, taxaw ko ci bu baax a baax yooyu dafa yéen wi di kontaan ci moom ci woyefteem ndax euh, pour la première fois ma toog jàkkaarloog moom yàgg naa ko toog di ko seetaan nag euh, di bëggee ci vraiment euh, xam-xam bi nga xamante ni vraiment mu ngi koy xelli di ko wéccoog doomu aadama yi di ko sol ci bawlatu aadama yi ko sant di ko gërëm jërëjëf jërë ngeen jëf mbokk yi doon déglu yéen itam Fatou Thiam Ngom moo ne woon ci kàddu gi feggoo ak Diaw Diallo ci machine bi gërëm suñu naataango enquête 221 di yeneen partenaire u plan ak euh, EMAD ci àndandoo bi gërëm ñëpp ñi nga xam ne jàpp nañu ci émission bi ngir mu sotti ñu dig leen daje beneen dimanche incha allah dalal keneen euh, waxtaanee mbas mi ak euh, ni ñu ci aaro ñun ñëpp ñu ànd aar aaro ñu yendoo jàmm